بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي تلسبكتاتور yi ñu seetaan ci sunu télévision bii di As-Samadiyya TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ak fu ngeen mën a nekk moo xam ci biir réew mi ak ñi ci biti réew mi di leen yëgal émission boo xam ne nii fas na yéene di ko ànd ak yéen guddig aljumaa ju jot maanaam bu ñu yendoo ci alxames ba ngoon guddi gi di guddig aljumaa émission bi nag mi ngi tàmbali 22h jëm 23h euh, liñ ci war a waxtaanee itam mooy alxuraanul karim ak lépp loo xam ne nii aju na ci téere bu tedd boobu muy ñi koy jàng ñi koy jàngale borom xam-xam yi nga xam ne nii seen xam-xam màcc na jëm ci. ñooñu ñëpp fas na yéene di leen dalal fii ci as TV bu 22h jotee jàpp 23h ci bépp àllar euh, bépp alxames bu nekk incha allahu taala émission bi nag mu ngi tudd Mawridu Zaman ngeen di ci ànd ak seen mbokkum daara Serigne Mamadou Dramé Mourou Chadif fii ci as TV kon képp koo xam ne nii yaa ngi ñu suivre ci suñu télévision bi rek nga bàyyi ko xel incha allahu taala waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. adraka من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر